est-ce que est-ce que asalaamualeykum dana tax julli gi baax nooy selmale asalaamualey fooy geesu ki nga féeteel fii nag bu fekkee du koo bëgg nooy def <laughs> xanaa doo ne asalaamualey mais euh, bi ngeen ma séenee sànq may ñëw lu ngeen wax. sëriñ Babacar a ngi ñëw sëriñ Babacar waxtaan ak yéen ba dem dige bi muy dem dafa dige dem defu ko bu dee ñëwati kii ñëw kana déedéet wax leen kii ñëw kana rek ah <laughs> déedéet moo mooy li ma taquluuna yéen jullit yi lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def bu ko defee nag lii sëriñ Mansour Mansour moom yàlla bu ko cat topp wallahi dama ko koy ñaanal bu baax a baax biiram ak biteem a yem dafa dëggu Mansour amul dara lu muy réservé lu muy nëbb ñëpp la ko ñu nag ñëpp la ko bokk yemale loolu moom fa tabarakallahu ahsanu dafa yàgg ci moom loolu lay dox ba léegi dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat la baayam daan wax bu waxee ba pare daan ni allahuma la adur ay yàlla yàlla ab làmmiñu abdul bi yàlla bu mu nekk lor ci ñi may waxal yàlla na ko ko ci yàlla musal te yàlla may la nga àgg fi nga bëgg àgg fa tabaaraka am ngeen am ngeen am ngeen yéen yéen fédération bi am ngeen am ngeen ku am nag da xam ni am nga te nga tëye ci wallahi am nañu ku baax ku gore fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin fa tabaarakallahu moo tax ànd bi bu ngeen ko xoolee rek di ngeen xam fi ngeen jëm te loolu rek moo am sono moo am njëriñ ci ci jamono bii ñu toll Sénégal fi mu toll kenn xamul fu Sénégal jëm surtout ci wàllu diine surtout ci wàllu diine buñ demee ba yu bari man dama dégg sànq ñu naan loi wala alquran waaw alquran lu mu doon fa ida qaala allaahu fala fala kalaama bu yàlla waxee atte wax amatul bu yàlla attee ah amatul bon nag mbokk yi sunu tem yi nañ ko fexe ñu bindal ñu ko traduire ko ci français ñëpp ku ci nekk am ci ngeen di liir di xam seen bopp loolu mooy li ñuy jëriñ mooy li ñuy dund mooy li ñuy jëriñ nit lu mu nekk dafay seet ndax mu nga cay yokk wala mu nga cay dellu ginnaaw turandoom Cheikh Alhaaj Mouhamadul Mansour radiallahu taala anhu dafay waxtaan ak nit ñi ba ci man dama ko jël ci wàllu commerce di ci waxtaan bu borom bitig bi bu ëbbee bitigam balay jaay nu muy def xool ba pare soog di commencé di bu jaayee ba wàcc jot ngoon nu muy def ah dafay régler li mu jaay ak li mu leblek li mu am ak li mu ñàkk ba pare soog di soog di tëj dem tëri est-ce que ñun ni ñuy ñu ngi doxal ñu ngi seet suñu bopp comme ni ñuy seete marchandise meeg kenn ku nekk xool sa bopp ba nga xëyeek léegi loo loo liggéey lu jëm si ci yow lu jëm ci sa njaboot lu jëm ci réew mi lu jëm ci diine ji ndax loolu ñu ngi koy def mbokk yi damay laaj turandoom nee na waxaasibin nafsa fi dunia muhaasabatan qawla al qiyaamati tarbax duna xusraani man daal maa ngi dem dakaar mais looy wuti Dakar maa ngi dem Thiès looy wuti Thiès maa ngi dem 22 looy wuti 22 maa ngi dem Tiwaawan looy wuti Tiwaawan nga xam li ngay wuti nga dem dox ko mu sotti nga ñibbisi waaye na xëy di dem rek di dem di dem ba añ jot nga ñëw añ tëdd nelaw ba ngoon jot nga gontaat u foo jëm looy rek la ji moo tax góor gi def ma ba si wax baab bu sëñ Babacar moo seconde nu mu toll fekk boobu damaa tëjoon am ñu ma doon seet gisuñu ma mu woolu ma ma ñëw mu ne ma moo seconde nu mu toll ma ne ko papa tuuti rek mu ne ma nu mu toll ma ne ko nee nañ fa mooy su sant tiercé de mu ne ma luy tiercé ci olof ma ne ko xaw ma ko mu ne ma waaye mu gën a tuuti seconde ma ne ko fan juróom benn fukk yi mooy mooy benn seconde mu ne ma boo boo ko boo ko jëlee ci nit lu ko mën a delloo si mu ne ndax milliards yi ngay daw ci ginnaaw pour di ko am ndax boo ko amee mën naa delloo si seconde boobu dem te yàlla da koy régler wàññeekuwul ci alal ji ci sa dund la wàññeeku mbokk yi nañuy seet senegal jot na ñun ñëpp ñu àndaat murito tijaano yii ay wax la yuy yàq te nit ñee ko fi tàbbal buñ ne murit bi nekkul ci dëgg tijaan bi nekkul ci dëgg xaadir bi nekkul ci dëgg murit bi ci lu mu nekk du tariqa tariqa boobu dafa génn laa ilaha tijaan bi dafa génn laa ilaha muri xaadir bi dafa génn laa ilaha mais yooyu bu dul dëgg luy dëgg yaa ngi weddi dafa ni nit ki ngay weddi or que li mu nekk ngay weddi moo tax seen sa papa daan wax ni moo laa ilaha illallah bu defee faas laa ilaha illallah ni deqe ren di laa ilaha illallah ba àgg ci laa ilaha illallah lan la ñuy lay laa ilaha illallah kon lii sans la ci ñun ñu dajawaat nii Mansour amee lii ba def leen ngeen di benn di bokk di bokk benn mbir yal na sax yàlla bu ci làmmiñ tàbbi leen ah yàlla bu ci làmmiñ tàbbi yal na ko yàlla saxal waatasimu bi xablillahi wala waaye wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa fa asbaxtum bi nicmatihi wa kuntum ala shafa xufratin min annaari fa anqadakum buñ ko toppee ba ca wala takunu kalladina tafarraqu yuxtalafu min baadi ma bay jaahumul bayinaat leer na leen baaxul mais mu am am na lii am tiwaawan bu leen ko jàppee lii am tiwaawan ma nettali leen dégg na Cheikh Al Hadj dafa toog benn bis ba pare rek jóg ni bëret dugg ci dog bi di jàpp raxas loxo ba si yàgg mu bàyyi booba mag ñi wuute nañu ak ñun Mansour mag ñi loo def ci seen kanam te xamuñu ko doo génn te waxulee leen ko ndax du ñu génn mukk di la di la wax di la jëw biñ ko laajee moo góor gi danga doon jàpp raxas raxasoog loo sa loxo moo sax mu ne dama doon bëgg ñaan lu sama soppe ba amul muy Seydina Muhammad kon naa bàyyi lu yàlla dogal muy noonu xasiba naasu an yutraku an yaqulu amana wahum munta nekk yàlla boo ko gëmee rek mu nattu la nattu boobu dikk na tiwaawan may jeex na ku ci tëye yaa ci tëye may jeex na kon mbokk yi jullit yi quatre vingt quinz pour cent sont sirnoo la walla waaw lan la ah dañuy waxtaan mbokk yi ah amul amul nañ jàppoo nañ delloowaat lislaam fa mu nekkoon lislaam waxul kenn toroxal lislaam dafa sawar ci kuy liggéey lislaam dañ boo demee ci wabtaxi fi ma ateeka allahu daaral waaye wala tan sa nasibaka minat wa ahsin kama ahsana allahu moo tax yonent bi ni laysa xayrukum man taraka dunya li ajli l axira wala man taraka al axirata li ajli dunya bal xayrukum man jamaa baynahuma ki gën ci yéen du ki bàyyi àdduna pour ëllëg wala ki bàyyi ëllëg pour àdduna ki gën ci yéen mooy ki boole ñaar yi wa atu zakata foo koy jële ah ci alal ji alal ji noo koy amee liggéey nga koy amee waaye léegi mbay mi baaxatu tiwaawan gi maanaam tiwaawan gële sax tiwaawan na mu meloon fa tabaarakallah do bitig yëpp di dox bay Mansour ñoom Abdou Nabi euh, Ali Taxaat mag ñooñu dañu téye woon tiwaawan ak ñoom euh, ndooyeen boo demee ci kër yëpp dañ daan liggéey ana anam anam maire sax maa ngi koy tooñ ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp ab alit ñoom ñëpp dañ daan liggéey mais est-ce que doomu tiwaawan mu ngi liggéey wuute nag na mu meloon wuti nag na mu meloon bu ko defee nag mbokk yi loolu rek laa doon sànni li li ñoom Pape Makhtar wax doy na sëkk bala ngay di dara gis ngeen fi Pape Makhtar jaar ak wàllu sophisme fi mu jaar lépp dëgg la bala ngay di dara euh, sekk nag mu ngoog daal Sénégal a ngoog <laughs> wallaahi Sénégal ngoog waaye daal ku bëgg mu ci joxal yàlla sa bopp turandoom dafa wax ak mag ñi wax ak baayam ci afil basitati bu leen woy dafa laaj ndax am na kenn ku nekk ci kaw suuf ku ñu war a jaamu wala déet bañ ne ko déedéet mu ne subhanahu min ilahin wahidin samadin lahul baqa wa sanaun fihi taxlidu yàlla rek a fi nekk waaye kat baay yàlla nee na naa la sant fardun alal ibni shukrun walidayni wa anta alwalidul bar kon yow rek yaa fi nekk yamale say doom ak koo koo jur ak koo jurul ndax lépp a ngi ci biti mu dem ba ca biir mu ne ko rutan nufuusa li diinillaahi tarbiyatan waaye iblisu mabtasamat minhul makka iblisu def na pexe mu nekk ci jamono Seydil Hadji Malick pour am ree pour mën a ree mu muuñ waaye amul sens bi ndax ñi mu dajal ñoo ko mën mu dem nag ca moom Seydil Hadji Mansour ba tey di seede baayam naan ko awatta fi nafsi aadatin urifta biha sidqun ku dëggu nga ci lépp ci wax ci jëf wa zuhdun ku dëddu àdduna nga ginnaaw bi nga ko téye ginnaaw ba nga ko téyee moom Seex Alxaaji Maalik xam nga benn góor dafa ñëw fekk ma si jàkk ji ñuy waxtaan ak xale yi mu ne ah man ni suñu Babacar dama ma ne ko ah papa lu la jaaxal mu ne ma ah, doom seen maam dafa dëddu àdduna ma ne ko kañ la ko dëddu mu ne xaw ma ko ma ne ko bi mu ko téyee ba amul problème mu dépense la dëddu àdduna ndax moom bëggu la lekk lu dul ñaqam waaw waaye bëgg dëddu àdduna yoroo dërëm boo xëyee di kàbbar war a njëg njëgu mburu mbaa bu la ay da si gisee di ko mën a jox njëgu mburu wala boo dem nga kàbbaar di tari mburu mburu ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir mi wala si biti réew da di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo mën a xam li nga xam